Euh, yow nag nga yàgg wax ne euh, balaa ngay yëy àddu ci mbiru mandat bi. c'est ça da xaar ba nga xam ne moom mooy le principal ne Macky Sall mu wax. c'est démb mu nekk une décision historique. Euh, Sénégal euh, capté toute l'attention de la communauté internationale fii ci biir réew mi rafet rafetlu décision bi président xam na ne moom du dem et que code bi ko régir. mayu ko muy nërmel li nga xam ne eh, moom mooy ëllëgu réew mi gannaaw moom ba mu waxee eh, yow eh, lan nga ko ciy dolli. jërëjëf Maymuna ginnaaw bi ma la nuyoo jaarale sama nuyoo bi jëm ci askan wi ci seen télévision bi ma lay sant bu baax ci opportunité bi nga ma may. li may njëkk a def mooy rafetlu bu baax a baax a baax li nga xam ni lii président de la république jël na ko comme dogal dogal boobu mooy bi ma doon xaar ci moom puisque du tey laa ko xam yi xam naa ko depuis quatre-vingt-neuf bi muy ñëw ci PDS jóge AJ donc décision bii rek laa doon xaar ci moom te décision bii rek moo mënoon euh, méngoo ak dayoo homme d'état ak chef d'état boo xam ni am na ambition pour réewam mais am na surtout ambition pour continent africain puisque xam naa ci moom ne lépp luy gàkkal deru Sénégal wala lépp luy gàkkal deru Afrique dana ko moytu lu mu man donc man décision bi bettu loolu moo taxoon ma ne na nit ñi teey xaar kenn du toj gémmiñu sàmm te wëliisagul léegi nag defe naa ni bi mu wëliisee ba pare mbégte moo ëpp ci ñépp nag ñi ko doon xarab ak ñi ko doon kañ yépp am nañu mbégte tey bu ngeen dégloo muy ci biir réew mi muy bitim réew muy waa muy waa àddina bi ñépp ñoo ngi kañ Sénégal Sénégal dafa mel ni delloowaat nañ ko sagam ci Afrique comme modèle démocratique delloowaat nañ ko sagam ci àddina bi te décision bii mu jël li ma ci gën a bégloo mooy yëkkati na ko ci màqaama boo xam ni moo gën a kawe bii muy waaj a bàyyi gis nga na Mandela meloon ci Afrique du Sud ba mu bàyyee jox taboo mbékki ku daan visiter Afrique du Sud gis Mandela nuyu ko moo lay gënal dem ci taboo mbékki donc je pense que décision bii mu jël boobu dayoo la am yëkkatiwaat na image yu Sénégal ñépp a ngi koy wax boo dégloo chef d'état africain yi wala ancien chef d'état yi ñépp ñoo ngi naan Sénégal mooy porte flambeau démocratie je pense que euh, ñi nekk ci diaspora bi man li ma jot ci ay message yu bàyyi ko ci ay diplomates internationaux ay autorités internationales moo ëpp li ma jot ci message yu bàyyi ko ci réew mi donc loolu rek jaroon na ñu teey bàyyi ko ak teeyu bakkanam ba mu àddu léegi bi mu àddoo mbégte moomu laa ci laa ci am léegi xëy na li ci des mooy ñu jubalewaat Sénégal ñëpp àndandoo nekk benn bokk ndey bokk baay waroo ci xalaat warula jur noonoo waroo ci xalaat warula jur yàq ak toj li ñëpp bokk que yow boo ko tojee yàq ko da nga koy yàqal ñoo xam ni ñoom nga ne ñoom ngay xeexal parce que boo yàqee transport en commun waa population bi ñoo ciy dugg boo yàqee université jeunes yi nga ne ñoom ngay xeexal ñoo fay jàng ñooy jëfandikoo téere ya fa nekk ak archive ya fa nekk donc waroo ci xalaat li tax démocratie baax mooy lépp da nga koy def ci dal ak ci waxtaan toog wax kom ni ñu def bi ñuy def dialogue national bi wax nañu d'accord ñu ci lépp mais au moins li mu jur mooy li ñu d'accord xam nañu ko li ñu d'accordul xam nañu ko li nga xam ne lii dafa laaj xóotal mënuñoo wax ni d'accord nañu wala d'accord uñu xam nañu ko loolu la waxtaan di jariñ te loolu mooy mooy démocratie